di wax jub jubal jubanti la wax bale rek bale ba mu set rek ku ci gisul sa bopp yaa xam ma ñëw ci Bécaye mbay Bécaye Mbaye tontu yi dina oyof de waaye ay dëgg yu saf sàpp lay doon tontu yi li tax muy oyof ndax sa doom jooju Modou mbay mi nga xamante ne patriote piir la et dur patriote cent pour cent moo tax luñ la bëgg a wax rek bu ñu xoolee ci moom suñu yaram suñu yaram ndaw tuuti waaw ndax yow nee nga Waly Diouf li mu def du social du yërmande ah yow xam nga lu yërmande bi fi Macky Sall la nekkee téye mille six cent détenus quatre vingt quatre vingt six morts sans compter ay blessés boobu foo nekkoon boobu fan lan la sa yërmande féete woon kon ci ginnaaw la féete woon tey la def tey la ñëw taxaw ci sa kanam gis nga fu Diouf Bodiang 700 personnes yooyu mu yi loolu bu ko deful woon président ju may ak président Ousmane Sonko jëlee ko fa seet ki nga xamante ne kii day liggéey li liñ ko sant mu di ko def ak li nga xamante ne demande sociale la nga taxaw ci bu ko deful woon ñu jëlee ko fa teg fa moromam ndax gis nga réew mi caaxaan daf fee jeex. naa fekk ci boppam daf fee jeex ndax 700 personne yooyu ay employé politique lañu jàppal ma sama lii jàppal ma sama lee téyal ma sama doom téyal sama jabar ma sama nijaay téyal ma sama sama dolaale kon boog tey jii bu ñu ñëwee fekk leen amuñu mérite pour nekk fa dañu leen di tonni ni mbalit sànni leen ca àll ba jël ñi ko mérité l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jël ñi ko mérité xale yaa ngi fii di taxawal yor seeni diplôme macha allah mérité ko lool nag ñu leen ñu leen leen fii ñukk ndax lu tax kenn du leen jël ndax amuñu bralon ñooñu nag comme bralon moo leen fa tegoon bralon moo naan leen fa keccet mu neex mu naqari yow Bécaye Mbaye yow mi wax yërmande yow Tapha Mbeur fii lañ ko fii la ñëw ci sa plateau toog daa di commencé waaw waaw war nañoo wax njiitu réew mi ah mu bàyyi daal jaay doole gi muy teg ci kaw ak doole gi muy teg ci kaw Ousmane Sonko nga daa di ne eh fay leen ma micro coupé leen leen ma micro bi coupé leen ma micro bi turu kooku moom bu ko fi kenn wax kon tey jii ñii bu ñu yàlla defee ba ñu ba mu indi leen ci euh, ci réew mi jël réew mi teg ko ci seen loxo war ngaa mën a màndu nag ci seeni doxalin wax dëgg neex yàlla bu fekkee kilifa rek nga war nga cee mën a màndu te xam ne say wax ak ku waxagul ñoo moom lañu boole yamale ndax ba wax jotee waxuloo woon kon doo toog ba tey jii wax passé nga bëgg fee nekk di indi say argument kenn du la ci déglu kenn du la ci déglu te nag gis nga kilifa day moytoo tooñ yow xamal ni fi nga taxaw dëgërul ndax sa jëfu démb moo tax sa taxawaayu tey dëgërul màndul nga toog jàpp sa ñàmbur nit ñi doxal si nga bàyyi ñii doxal seen doxal lu leen neex li nga xamante ne li mooy dëgg ñu nekk ci parce que ñooñu dëgg lañ leen xamee ba ci Waly Diouf Bodiang mii ngay dal ci kawam ñëpp xam nañ ne liggéeykat la jàmbaar la macha allah ku gëm boppam ku gëm li muy def kon mbokk kooku yow mënuloo koo gàkkal ku dul yow sax koo gàkkal kon mbokk kilifa day moytoo tooñ rawatina nag nga am doom ju mel ni Modou mbay xale boobu nga xamante ne dawul dara ci patriotisme am bu xeex jotee dafa taxaw xeex bu wax jotee dafa taxaw wax te pourtant yaay kilifaam de gis nga nit di nga jur doom doom jëgën la yow nag loolu mooy sa taxawaay ak Modou mbay loolu la ñu bari di seet kon boog nag bàyyil jàmbur yi ñu doxal seen doxal te nga dellu ci sa bantambaaga nga nekkoon te may ñu jàmm wasalaam